une innovation de taille pour la lutte sénégalaise Gambian people am ngeen bés bu mag ndax Luc Nicolaï Elko ak Alburah Events ñoo def collaboration boole seen ay doole du xam ngeen ni Modou Lo le roi des arènes moo war a jàkkaarloo ak Ama Baldé sëll bu ndaw Tapha Tine borom takk slip war a jàkkaarloo ak Eumeu Sène surtout Samba Xoya ñu ni nag dañuy dem Gambie sous le patronage du président Adama Barrow de la Gambie le 16 septembre dîner de gala bu exceptionnel ci ak Pape Diouf et la génération consciente. Table de 10 personnes. VIP Platinum, 50 000 dollars. VIP Gold, 40 000 dollars. VIP Silver, 30 000 dollars. Entrée simple, 2500 dollars. mbëri jàkkaarloo ku ci nekk wax jëmal ci sa morom. koo am en direct sur la télévision gambienne. JRTS. sponsor leader ba ñu ne Africell. foo nekk ci Gambia da ngay am réseau. transfert d' argent bi gën ci jamono muy KP. hey Gambia nar naa yëngu de Modou Lo Ama Baldé Tapha Tine Eumeu ak mbëri mbër nga xamante ne nii tëgg nañu a daje biir mel ni mbokk yi tey fi ma toog tey wala fi ma fi ma dajet fi ma ñëw tey Mamour boo tourné caméra bi njuga ja ngay gis yaa ngi dégg boo tourné caméra bi Ibrahima Mbaye ngay gis mu mel ni tey faas nga woon faasu démb laa dajeel dajeel tey nga turalaat caméra bi daj ci Sidi Taabaan boo nee njuga ja Ibrahima Mbaye Sidi Taabaan sa xel dina dem si ndem si yàlla mbay Guèye yàlla na ko yàlla jéggal waaye sa xel dina xalaat Sidi Soumaré ay Sadio Camara Guèye Camara yaa ngi dégg ah Seydou Khoule Alsane Diakhaté yàlla na ko yàlla jéggal ñoo ñëpp ndeysaan ñu ci bari wuyu ji nañ seen borom tey nag ñii fi des tamit yàlla nañ fi yàgg te wér waaye sa xel day dem ci Moustapha Gueye le troisième tigre de Fass sa xel tamit day dem ci Gris Bordeaux parce que li tax mooy loolu moo doon faasu démb ba tey persi di taaban mi yaakaar naa ne ci li ma xam wala li ma gëstu mooy ca fasu demb la woon ñoom ñii toog faasu demb la ñu woon per maa ngi lay nuyu di la ziar macha allah jekki sañse laa ko tudd ndax moom daa mën a sañse Babacar ñu ngi lay nuyu baax di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant xaadimu rasul di ndokkeel euh, képp koo xam ne waxuma murid sax waaye képp kuy doomu aadama ku demoon màggali wala nga màggali ko fanga ne mhm. maa ngi leen ndokkeel ci bis bi di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp tey sàkku ñaan ci ñëpp wasalaam. kañ nga jóge Touba. démb laa ñëw nag li tax ma ñëw démb it sama doom muy doomi Alsaan mi nga xam ne dafa bokkoon ci ñun di kenn ci ñun te ku wax Alsaan wax Faas mhm. ku wax Alsaan Jaxate wax Njuga Ja ku wax Alsaan Jaxate wax Ibra Mbay ku wax Alsaan Jaxate man mi mhm. doomam ñu koy wax Kara Jaxate sëñ Modou Kara Jaxate war a jël soxna tey looloo waral tey sunu daje bi fii ngir nu fas yéene dem ñaani li ko soxna loolu moo tax ñu daje fii démb laa jóge Touba looloo ma tax a jóge Touba démb waaw waaw. am na solo mais comme ni ma ko waxee léegi rek yaakaar naa ne bu ñuy wax làmb di wax faas defe naa tur yi ma fi tudd sànq ay Sidi Taban ay gii kamara yal na ko yàlla jéggal Alsan Jaxate yal na ko yàlla yërëm Ibrahima Mbay Njuga Ja ñu mu mel ni loolu moo doon faasu démb gi ak tur yi ma xamul faas gi nekkoon démb. waaw xam nga olof yi dañuy wax ni mbooloo mooy doole. waaw euh, tubaab naan ñoo fait la force. Fass famille la woon. ci li ma jàpp Fass gu jëkk ga ak Fassu tey am na différence. ndax nañu daan ànd ñun. di ànd ñu leen di woyu ngóor si ba ñu leen di woyu góor gi du ñaari fan du ñetti fan ay fan yu baree bari la. tey jii kóllëre googu ñu daan ànde ba léegi ñoom ñun moom la ñuy ànde léegi nag xale yi nag ñun lañ daan sàmm ak nañ daan ànde ñoom du ñu ànde noonu moo tax xëy na man moo tax man la faas gu jëkk ga ak faas gu tey du benn déedéet du day am wuute bu baax a baax yéen bu jëkk ba nu ngeen doon ànde bokk ndey bokk bàyyi kenn ku ne li nga am nga yéene ko bokk kook ñëpp lu nit ki am nga yéene ko ko tolo am bokk kook moom faas noonu lan daan dunde te it kenn musta benn mbër musta taxaw am komba du Ibra Mbay du Njuga Jam yi du Alsaan Jaxate du Moustapha Guèye du kenn ci mbër yi koo xam ne mas ngaa taxaw di bëre nga bëre ba noppi en encadrement bi wër la kenn ku ñettaal la loxo naan la jox ma jox ma xam nga lu ñu doon bëgg ci yow nga bëree boo boo bëree daan yow jo defal nga leen lépp loolu waaw fay nga leen wàccoo nga ak ñoom ba ci entrainement yi nii boo ñëwee combat Moustapha Guèye Ibou Ndafa le 9 9 euh, mai xaw ma 9 juin 91 bi muy daan Ibou Ndafa seen revanche bi mhm. lamb bi ja alxames tombeel ñu ngi ko préparé fii ci géeju parcelle gii ba ñu paree entrainement Moustapha Guèye ci jëmmi boppam moo woo ñëpp mbooloo mi encadrement bi ñëpp taxaw kenn manqué wul mun leen jërëjë jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm naa leen gis naa coono yi ngeen daj waaye bu alxemesee bu ginnaaw subaa ndax talaata la mu ni bu ginnaaw subaa ci alxeme ji seen xol dina sedd yéen wàcc ngeen maa ci des te bu soobee yàlla duma leen décevoir du ma leen rusloo loolu jom koy def loolu ngor moo koy def te noonu noonu ñu ànde woon loolu moo jafe léegi ci xale yi tey xale yi li leen di li leen gën a intéressé tey tey ci làmb fii xale yi tool laa wax de damay généraliser nag ñëpp laa wax mbër yëpp mbër yu ndaw yi ku ciy bëree amee succès am xaalis ah, euh, fàtte na la ko faloon waaw looloo fi ne ci am succès am xaalis fàtte nga la la faloon te ko fàtte la la fal nag ah la la folliku day taxaw ci sa boo defee faux pas rek mu fëkk la mais euh, ca démb comme ni nga ko waxee fas dañ daan am boo ne Mbaye Guèye xel yi dem ci fas mais boo tuddee Moussa Gningue même dumbar mbër mais xel yi day dem ci Fass nga tudd Sidi Taabaan marque yooyu ngeen am lamb te marque yooyu waaw mais loolu loolu mooy lamb mooy famille bi ma la waxoon au départ dama ñu la ñun dund famille lañ daan dund dañoo bokkoon ndey bokk baay ñu toog saison bi jeex tàmbali leen dañ daan tàmbali leen ñoo ko diggee diggee bor la ñoo ko diggee ay bu leen leen xaar dañ daan nekk entraînement Ibrahima Mbaye ngi nii du ma bàyyi ma fen saison bi tëj ñu ne ay ca mbër yi saison bi da jeex na waaye bu bu tàkku tàkkusaan jotee cinq ñun dirigeant yi fa la ñuy ñëw bis bu jot ba saison bi ubbiwaat di nas di nocci di xool lu ñu di orienté mbër yi diw war naa mën a bëri diw diw war naa mën a bëri diw diw bi fin bi saison bi di jeex mu ngi ci doole war naa mën a bëri diw bu sa làmb ubbee diw bi saison bi tëj amulatul doole dañ ko war a renforcer mu yokk balaa làmb ji mu mën a bokk loolu moo daan am te booba temps génnul ndem si yàlla ji Modou Mbeng ndem si yàlla ji Papa Ndiir dégg nga Moussa Ñing Ibra Mbay mii man mii Sidi Soumaré Bouba Thiaw dégg nga ñoom Moussa Gueye xale yooyu nga xam ne ñoom ñoo topp ci suñu ginnaaw ñooñu ñoo daan ñëw di ñu wéttali si bu ñëwee école Manguier duñ fa def dara lu dul toog jox euh, euh, jabar yi gardien bi mu ñuy ataayaal jënd gerte mburu toog di waxtaan di nas di nocc di nas di ba timis jot bu nu jullee timis génn ba Moussa ñi ngi daan wax ne yéen ñi xanaa euh, mbër yi dañoo liggéey boog fii ba kenn mënu kenn mënu fee jóge loolu bëgg-bëgg la woon tey jii man ku ma bëgg a toogloo fii di ma wax loolu làmb ba timis du ma ko nangu wallahi al azim lii yow li ngay sama doom a tax ma ma ma wax ak yow lii ma wax ak yow tey ak fi ma la fekk njuga bi ma koy woo sànq woo naa ko ñaar yoon ma coupé ma après mu woo ma ne ma dama dañ ma doon interviewé moo tax ma ma coupé la ndekete boobu yaa fi ne mhm. su ma xamoon yaa fi ne damay toog mbedd ma ba nga ba nga ñibbi ma door a dugg ndànk hmm. maire waaw dama la bëggoon a dama jël sama temps de vraiment yaa ngi ñëw <laughs> dama waaw non xam nga comme li ma la wax rek man wax dëgg yàlla làmb moom bàyyi naa ko waaye bàyyi naa làmb waaye bàyyiwuma ñi ma yàlla booleel ndax xamee boo gis dafa am fu koy yàlla di jaarale sama digganteeg ñii mbay géey man ku ma xam ci làmb mbay géey nga ma xamee waaw ku ma xam fu mu jógee sama digganteeg mbay géey ci supporter la la tàmbale dama ko doon supporter dama ko doon supporter mu dëkk faas ma dëkk Gueule man Gueule Tapée laa yoroo may jóge Gueule di ñëw faas di ko fekk si mhm. di ko fas fekk si ñuy waxtaan mu may wan ay frère may xam mu naan ma kii sama nangam la diw sama nangam diw sama nangam la ba yàlla def benn bis bi ñu tuxalee avant ñuy tuxal Fass sax mhm. ma soxla ko seet ko gisuma ko ñu ni ma demal kër ñoom Moussa Dia mhm. ma dem fa yàlla na ko yàlla yërëm suñu mag jooju ba ma ñëwee fekk ko fa mu ni ma heure boo ma soxlaatee boo ñëwee sama kër boo ma fekkul fii fii laay ne kër Moussa Dia ma koy fekk foofu mbéy gi moo tax ma xam Khalifa Dia ba tey jii Khalifa Dia maa moom du ñu ñaar kenn lañu waaw maa ngi moom du ñu ñaar kenn lañu ndéem si yàlla Ndiaga ñun ñooñu ay doomu ndey lañu waaw kooku Ndiaga Diop itam yàlla na ko yàlla yërëm moom tam ku daan sonn ci écurie bi daan sonn ci mbëri Fass yi la moom it yàlla dogal génn jiitu na mhm. waaw Fass daal noonu lañ daan dundee noonu lañ daan doxee mbay sama diggante ak mbay gi comme ni ma la wax si diggante supporter ak mbër la woon ba yàlla def ñu nag maa moom ñu bokk ndey ak baay. li ma li ma li ma Assane Gueye di wax toujours nee na ma euh, yow li ñu wuutaleeg yow mooy santu Gueye ak taabaan wi mais lépp ñoo ko bokk. xam nga loolu ku la ko wax. boole na ci boppam. mais gis nañ après Mbaye Guèye bi mu bàyyee Tafa Guèye fi desoon topp nga Tafa Guèye ba ci Gris Bordeaux sax dernier am am na ay dernier combat yoo xam ne gunge nga ko maanaam gunge nga mais dañ jékki-jékki gisatuñ waaw léegi làmb moom li ñuy wax gunge egg baaxu ca. gunge egg baaxu ca am na foo xam ne boo fa tegee sa tànk. da ngay taxaw say say doom say jarbaat say rakk ñëw. daal di ñëw continuer waaw loolu la mais man fi mu nekk nii maa ngi sant yàlla bu wér a wér. mais Gris mu ngi jëm ci benn combat boo xam ne combat la xam ne bu doy waar la digganteem Ama Baldé muy derby Fass Pikine combat bi premier octobre la waxoon mais waxtaan am na ba yóbbu nañ ko mois de janvier Gris Bordeaux xam nga ko yàgg nga ko yóbbu ci làmb Ama Baldé itam yaakaar naa ne xam nga ko ndax dugg na Fass duggati fa am lu fa def tey Gris Bordeaux ak Ama boobu Babacar hmm. ca njaal benn ne naa la du ma nangu nga interview ma waaye njuga jam yi du ma fekk këram nga interview ko ba pare mu wax Ibra Mbaye ngeen sot sotoo ma ba dugal ma fi tànc ma ci roq naan ma combat Gris Bordeaux Ama Gris Bordeaux ak Ama daal combat boobu sama mam buruma bëriwu ma ci xam-xam ah, déedéet bëriwu ma ci xam-xam de donc kooku man du ma du ma technicien làmb da nga koy laaj technicien yi ñu ko jàngay laaj wala Ibra Mbaye ñooñu ñooy technicien yi man tànk bi Gris jiital xam nga ko eh, musuma bëre musuma tànk bi Gris teg xam nga musuma bëre Babacar musuma bëre xam nga tànk bi eh, Gris defe naa ni pied gauche lay teg de ama xam nga tànk bi muy teg defe naa ni pied pied gauche lay teg moom it waa ñaari pied gauche bu ñu dajee nag. ah lamb la rek ah que le meilleur gagne. que mais lan moo la découragé ba nga bàyyi lamb. non nga découragé wala bëgg bàyyi. bàyyi lamb ndax euh, magum lëndëm Cheikh Tidiane si almaktoom yàlla na yàlla doole leeram tax ci barkeem dafa ni. magum lëndëm ku ko dajul na daj boppam. bu dee dëgg nga bëgg dégg ndax fi ma fi ma fii ba ba may laloo sama loxoom day joor bàmmeel ku yàlla bind jaralu tooma fen duma ma la wax fukk mu ngir ay yaa ngi ma dékk micro may wax di wax wax joo xam ni gëw ma ko wala muy wor may wor sans bopp duma ko def mm-hmm. maa gisatul sans bopp ci làmb banaa làmb gisatoo sa bopp ci làmb seetaanatuma làmb sax ci télévision hmm? yàlla xam na ko gisatoo sa bopp ci làmb kon ça veut dire que gisatoo bàyyi naa làmb gisatuma sama bopp ci làmb nit kay boo gisatu sa sa sa bopp ci dara da ngay bàyyi rek noppalu gisatuma ko ci wallahi lazim ma ni loo gisatul sa bopp kay gisatoo ci sa bopp bu dee gëdd ak ñàkk gëdd ak ñàkk joxe cër yëpp ci bokk yam mm-hmm. nit ki bu ngeen di ànd ba mënatu leen ànd nañu ànd boo gis na fe ngeen bokk aw yoon Babacar tey jii boo jëmoon xombal nii ma ma war a jëm sumbu joon est-ce que lu ñu bëgg-bëgg ah. ànd duñu mën a ànd ah, ah lool nañu ànd boo gis nag na fekk ngeen bokk aw yoon bopp am naa yoon woo xam ne ci laa fas yéene tënk ba ba may fekk sans borom mm. incha allah mais ah, am naa droit laaj la lii xanaa tafaatin xam nga ko kuy tafaatin bu bawal tafaatin ah. ah danaa koy dégg de ci rajo yi. ama seen xamoo. ama seen tam dama koy dégg rek de. père da ngaa bëgg a bàyyi làmb xam ah, li ma la wax doyu la. <laughs> jërëjëf. yer waa koy jabar wan nga xëja daana yer waa koy jabar wan nga xëja way leen làmb ji rek loo ci mën a dégg nañ ko way yer waa koy jabar wan nga xëja daana ak lu mën a xew daal maamour nañu way làmb ji mu ngi noonu wallaay dëgg la daan na ko déedéet jël ba rëy sax nag daanu nga yow mi ta ko defee moom daan ko eh borom ñaaxara ngi ay waay waay mën a bëree neex melal ni Messi booy football mbaa Ronaldo mbala Sadio Mané waaye buy bëre tamit mel ni ordinateur dina noppale de des fois.